لله رب العالمين وصلى الله وسلم على مجمع شؤونه وحقيقة كنه سره سيدنا محمد بهجة الكون وديائه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi tànn leer ak jamono di ko leerloo muy rajo télévision bu wal fajri fu ngeen mun di nekk ci àdduna bi rek maa leeni leen di booleeti ñaari baat wala juróomi baat yi ñu yàlla boole di ñaari jumla muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di del ci kartanal yàlla di sof yow lima ma sosoon ak yow rek ci gàddaay ak yonantu bi topon naa ko ak yow sax waaye daal yonantu bi loo wax ci moom rek rawatina ci wàllu gàddaay ga doo ca doyal moo tax ma bëgg la cee émission ci gi wax la kër abi ayuba gi mu daloon fu kër ga mujj ak abi ayuba mi ko dalaloon fu mu mujj wax la dara ci jàkkaam ju tedd jooju nga xam ne benn fan la am diina ci ëllëg sa di ñaareelu fan ba rekk ci la rëdd jàkka ja jëlee ko ci sëhlu ak suhaylu soxla dara ci jàkka ji bi mu ko rëddee ñaata mètre la woon ci commencement ba gannaaw si ji ni mu ko yokkee xulafaawoom yi ñaata ko yokk gannaawam ak tey actuellement jàkka ji ni mu toll ci yaatuwaay loola lépp tabaarakallaahu benn boroom xam-xam bu mag bu ñu tuddee Mouhamed Saïd Ba def na ci gëstu bu rëy rëy rëy bu amaa am solo actualité ko muy dëppale ko rekk ak jamono ji loolu nga xam ne moom la ci def ci ay gëstu ci wàllu jàkka ja kër abi ayuba laa la ci yokkal def ko muy suñu mu jëg waxtaan tabaarakallaahu ci gàddaay ak yonantu bi waxoon naa la ko yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama ci gàddaayam gi gannaaw bim ci yoon wi la dajeek subayru yu ak talxatu ñu bàyyi koo saam ñoo ko mujj solol yére mook sayduna abubakar ay yére yu weex tal su ko defee yére yooya subayru yu solal leen ak talxatu moom lañu duggee màkka moom la ñu duggee madinatul munawara bàyye koo màkka ba ñuy ñëw ci yoon wi rekk heure bu nekk waa lansaar ñu ngi leen di tertu jamonoy tàngoor la bu ñu tertoo ba naaj wi tàng rekk ñu ñibbi def nañ ko ñetti fan ñetteelu fan bi sax ñibbi woon nañu waaye waxoon naa la ko benn yaaram moo taxaw ci benn tata ci seen état su xànq yooya rek seen Aboubacar ak Seyduna Muhammad ñi ñëw mu yuuxu banu xaylata ne leen gan gu tedd gi ngeen doon tertu tafaaroo woon ngeen foog ne du ñëw tey waaye yegsi na ci lañ départ ànd ak juróomi téeméer ci ay nit kenn ku ne ma nga ngànnaayu pour dalal xelu yonantu bi wan ko ne ko dal nga ci kaw ñu man njaatige ñoo xam ne dañ la protéger ba kenn dootul dal ci sa kaw ba ñuy ñëw nag seen yonantu bi ak abubakar ak seen yëre yu weex ya li hëpp ca ñoom musuñoo gis yonantu bi musuñoo gis abubakar ba tax na xàmmeewuñ ñoom ñaar ku ci sayyiduna muhammad xàmmeewuñ ku ci sayyiduna abubakar ci lañ mujj abubakar jër làmbaayam nga di keral yonantu bi ci lañ xam ne ah kon nag ndeke ki ñuy keral mooy sayduna muhammad ki koy keral mooy abubakar foofa nag la seen kal door a dalee booba abubakar ak yonantu bi ñoo ñoo ànd booba ñi ngi bàyyee ko Quba ci bani Amr ibn Awf moom diggante moom Madinatul Munawwara Quba benn farsaq rekk la escorté yonent bi ma ngay ñëw ndeysaanam juróomi téeméeri nit ci mbooloo mi ñu ngi ko topp boole ko ngànnaayu armé wu wan ko ne ko daal xawma kuy dal ci sa kaw waaye yow daal sa lépp ñoŋewu na defé yonentou bi départ giir gum romb rek ñoña ngay njëkkalante ne ko ñëwal nga dal ci ñun ba nga jëm madina utbaan ibnu malik ak abbas ibnu Ibad ñom ay goor lañ yu bokku ci bani salim ibnu auf ñoo ne ko yow yonentou bi saxal ci ñun am nañu mbolo mu la protéger yonent bi ne bàyyi leen gëléem gi noskaam gi ku ñuy digal la fa ñu war a dal bu fa yeggee mooy gooral boppam mu départ ba ba yegg siwaat ci kër ba nii ba yaadata ca la ko ziyaad ibnu labid ak farwatu ibnu omar bokk ci góoru ba nii ba yi tabaarakallaahu dalal ko ne ko ñëwal nga dal ci ñun xajoo nañ la borom mbooloo lañ borom doole lañ mën nañ laa protéger yonent bi ne xallu sabilaha fa innaha mamuratun ci lañ bàyyi laxab ga muy continuer di dem ba yegsi ci kër bani saadata ci la ko saad ubnu obada ak munfir ubnu omar ay góor lañ yu bokk ci bani saaidata ne ko ñëwal ci ñun am nañu mbooloo mu la mën a protéger am nañu doole ju la mën a dalal yonent bi wax leen la mu waxoon moromam yam romboon ne leen xallu sabilaha fa innaha mamuratun bàyyi nañ ko jëlem ji ñëw ba ci kër bani haris ci seen kër ya foofu la ko Saad bnu Rabi gatandoo ak Xaarijatu bnu Zaydin ak Abdullah ibnu Rawaha ay góor lañ yu bokk ci bani Haris ibnu Xasraj yonent bi ne bàyyi leen ko borom ndigal la ñu ne ko ñun xattan nañ la mu ne bàyyi leen ko de xallu sabilaha fa innaha mamuratun ci la continué ba xegsi ci bani Adi ibni jaar nga xam ne ñooy nijaayi maamam Abdul Muttalib ndax foofa la Salma mi jur Abdul Muttalib bàyyee ko woon ko la ko Sulaytatu ibnu Qaysin gatandoo ne ko ñëwal ñi dalal la ñooy say mbokk su ko defee yonantu bi ne bàyyi leen ko moom gëléem gi borom ndigal la bu heggee fañ war a dal rekk dana wàcc dana dana goor muy continuer di dem xale yaa ngi ko topp ña ngay way talaa badru alayna min saniyatil widaa'i gëlëm dem tay ba fa jàkkaam ja nekk tey booba foofa weerukaayu tàndarma la woon nekkoon xabru yuñ dencoon ay xéeféer mu nekkoon place bu bëri ay tàndarma yuñ fa jëmbat oo foofa la gëléem gi door a goor yonent bi wàccut mu del siwaat dem gooraat ca beneen côté wàccut ba mu del siwaat fa mu njëkkoon a goor moom laa la waxoon ne moom la maam xalifa ne barakat maratay ni su mata alxat su ko defee ci la yonent bi wàcc nag jàng aaya jële ne rabbi ansil ni munsalan mubarakan wa si lii munsilina wax na ko ñeenti yoon su ko defee foofa rek la abi ayuba jël bagaasam yi yóbbu këram abu ayuba mile déggoog naag yonantu bi ci baatin bul fàtte ne madinatul munawara ku ñuy tuddee tubaul imyari yi bam demee ba xegg fa fekk ab àll la woon kenn nekku fa ci la ko yàlla xamal ne fii mu taxaw fanaan fi di kampi lu mat fukki borom xam-xam wax nañ ko ko ci ñoom ànd ne ko fii mooy kër ak gàddaay ak mujj ak yonantu yi ca la tabax ay kër wax ne nag kër gi da moom laa koy tabaxal bu ñëwee fi lay dal fi kër googa mu tabaxoon ñooñu ñoom meññi abi ayubal ansaar yi moo tax yonent bi dalul ci kër kenn kër ak boppam la la dal comme ni ko yàlla xamalee woon Suleymaan ca rixlaam bu rëy booba ba mu ñëwee ba foofa ca Madina la ne fii mooy kër ak gàddaay ak mu jëg yonentu yi def fa discours bu rëy ne ku ko fekkee nanga ko gisal ku ko fekkee wut ab yaayuba mooma nag këram tey jàkka ji lekk na ko yonentu ba dal na fa waxoon naa la ko te suuf la njëkk dal mu jigi mu yéeg sa kaw gannaaw ba seen ndaa la tojee waxoon naa la ko démb su ko defee nag asaat ibnu saraara moom ne comme mënuma dalal yonantu bi daal maay dalal gëlëmum gi ci dal gëlëm gi rek yóbbu ko këram moom su ko defee nag abi ayuba këram ndeysaanam jàkka ji lekk na ko actuellement waaye booba ma nga ca wàllu jënub sarqiya ca jàkkay yonantu bi ca wetu kër Ousmane ibnul Affan seen kër ya sorewuñu woon su ko defee waaye tey loolu lépp dugg na ci jàkkaay yonantu bi yonantu bi sallallahu alayhi wa nekk këram fanaan fa ca ëllëg sa rek gannaaw bi mu waxee saxloog lu ñu ne kon dañ la koy may xalaatuñ ñu la koy jaay mu ne déedéet dama koy jënd de ci la ko jënd ci alali Aboubacar riwaaya bi gën a wér fukki dinaar la ko jëndee soo ko doon jël di ko gam-gamle dinaar bu ne ñeenti junne ala kulli dana la jox deux cent mille ci suñu xaalis su ko defee loolu lay jëndee place booba ci ñaari jirim yële di maanaam ñaari xale yële di sëhlu ak lu nekk ñaari jirim fekk weeru kaayu tàndarma la woon ci la yonent bi digle nañu dindi tàndarma ya gor ko xet yooya goreen ca moom lañ defee kenooy jàkka ja ñu jël xob ya moom lañ defee muy téegam jàkka ja su ko defee sulli ñañ fa dencoon seen yax yi ñu dagale ko place booba nag tay mooy jàkka ja waa banni jaar ñi ngi koy way rek ne nahnu jiwaarun min banni najaari yaa habada muhammadun min jaari ah ne ñun de ay dëkkandoor lañuy bokk ci banni najaar bu la neex nga ne tamit nahnu jawaarun ñun ay jéebéer lañ yu bokk ci bani najaar muhammad mi baax na daal ci suñ dëkkandoor keroog ba yonent bi duggee madina rek ci la madina leer leeraay goo xam ne mosu koo leer yàlla def suusu madina tabaarakallaahu di faj jàngoro tàndarma dañ fay jëmbat rawatina tàmbaro ajwa dafay faj tooke te loola lépp ñu ko jëlee ci barkeeb yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama ba mu demee bees nag asaad ak saadu ñoo ko daan yàkkal seen bagaan yaa mosta tarde moom la maam alaaji Maalik ne wa asaadun summa saadun yursilaani lahu xayra taami wa saadun laysa za saami su ko defee yàlla teeyal dëkk ba tàndarma ja di faj suufu dëkk ba di faj jàngoroy ngaana su ko defee fa lañ nekk yonent bi ñëw nag ba mu ñëwee lam njëkk def tànn ñeent fukk juróom ci waa lansaar séexal leen ñeent fukk ak juróom ci muhaajiriina yi loola waxoon naa la ca dara démb su ko defee yonent bi nag ba mu ñëwee ba dalkar abi ba ca ëllëg sa rek ba mu jotee ca palaas ba abubakar jënd na ko mu rëdd jàkka ja ñu dagale yax yu fënëx yañ fa dencoon gor garab ya su ko defee mu tabax jàkka ja booba wax naa la ko taxawaayu nit la guddi ñaay ba bu defal ko ñetti buntu ca jooja jamono bii buntu tabaarakallaahu moom lañ daan moom lañ xam moom lañuy wax léegi buntu benn buntu mooy tolloog buntu Abibakar ba ñëw tuddee booba baabu rahma moom la ñuy tuddee baabu atika lañ ko doon wax ki kooge jamono benn bi bi ñu tuddee baabu ousmaan wala baabu jibril la la defoon buntu ba tuddee ko ko muy ñetti buntu benn bi ci la daan duggee su ko defee jàkk ja da koo defoon mu nekk lu kaare qibla ja nak dañ ko jàkkarle wala baytul maqdis ndax bu daan julli fa daan julli fukki wer ak juróom ñaar yi ko def madina gudduwaayu jàkka ji juróom ñaar fukki meter la won juróom ñaar fukki qasabu guddu ñaay ba way ba nek juróom benn fukki qasabu gannaaw si nag la ko dolli téméré qasabu guddu téméré qasabu yaatu way su ko defé nak fondation ba dañ ko dañoo gas lu mat ñetti xasabu doora dugal doj ya mu tabax jàkk jile tabaxaale ya ñaari saal benn ba aïchatu moo ca nekk benn ba saydatuna sawdatu su ko defee nak kon ñaari néeg yi la buñ koy daan tabax nag yonentu bi dafa daan liggéey comme ñëpp di wax wax joo xam dafa rajal shahru rajab mustafilun mustafilun mustafilun waaye moom nag duhul waay kat waaye lil si jaam lañ koy tuddee ci balaaxa mooy wax dara la nga wax far tolloog waay te ba nga koy wax jubluwoo ci woon waay moo tax dafa daan wax ne hada alximaalu la ximaala xaybara hada abarra rabbuna wa atharu allahuma inal ajra ajru axirati farhamil ansaara wal muhajira du wayaan lili rek wax ko rek jubluwut ca way waye ñëw di moom saaba ya di ko toppandoor naan la in qaadna wan nabiyu yaamalu zaaka idan lil amalil mudlilu ñenn ñe ne laa yastawi man yaamuru al masajida yatabu fiha qaiman wa qaida wa man yura an turabi haida ñuy way rek saxaaba yi di way kontaan lool tabaarakallaahu ñi tabax jàkka ja muy dëkkaale kër abi ayuba yàkk yay ñëw rawat na yàkkab asaad ibnu sarara ak saad ibnu obadata seen bagaan ya du tardé ma ngay ñëw rek waaye du ñoom ñaar rek saxaaba yu bari dañ daan tibb di ko yàkkal ci tabaarakallaahu di ko ñëwal ba mu demee moom yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu toxaloo kër abi ayuba tamit yàq yay continuer di ñëw ci néeg soxna ya rek yàq ya nag togg bu baax lay doon yàpp lay doon bu ànd ak soos ak mburu ak dif ñi am am diw ñor ak lem su ko defee lii lañ ko daan andil ba tax na ñeenti ñeenti këll daal lu mu néew néew dana ñëw këram par bër bu set saaba ya di ko indi lii da ko daan fekk kër ab yaayu boobam taxoogut lii di ko fekk ca jàkkaam ja ca ñaari saali soxnaam yile su ko defee am na ci bagaan goo xam ne umu zeydin moo ko daan indi ibnu saabit moom sax moo ki njëkk a yekkal yonent bi ba mu ñëwee madinatul munawara mu fekk ko andi ko ca kër abi ayub al ansaar yi kon nag loolu la ko yàlla defal tabax na jàkk ja def mbaar ca pegg ba ahlu suufa ñoo fa dëkkoon matoon nañ ñeenti téeméeri nit abi hurayra moo leen jiite woon aaya bu wàcc ñoo koy njëkk a mokkal hadis bu wàcc ñoo koy njëkk a mokkal su ko defee bu jamonooy reer jotee li ñenn ña reer fa yonantu ba nekk ñenn ña dem mu teqale leen ci ay saxaabaam ñi dem di reeraani ña nga fa tabaarakallaahu bañ xeejee bees nag waxoon naa la démb ne climat ba dëppoowut ak ñoom ku nekk ca ñoom yaa ngay way di saalik abubakar feebar feebar bu métti bilaal feebar amir ibnu fuhayra feebar ba tax na ndeysaanam ña ngay sadd seeni wayaag ca feebar baag kulli mriin musbihun fi ahlihi wal mawtu adna min shiraaki naalihi su ko defee kenn ka ne inni wajadtul mawta qabla zawqihi innal jubaana xatfuhu min fawqihi am riwaaya bu ne innal jubaana xatfuhu min farqihi su ko defee tamit ña ngay way ku mel ni bilaal buñ ne ko xëyee ne ko noo xëyee rek kay fa asbaxta ma ngay wax ne ala layta shi'ri hal abitanna laylatan biwaadin wa hawli idqarun wa jalilu wa hal arudanna yawman miyaha mijnatin wa hal yabduna li shaamatun wa tufaylu si buruba métti ci la yonent bi ñaan yàlla jox leen suufu taayif jox leen kilima ba ñoom ñëpp ñu mujj nekk ci jàmm gannaaw ba yonent bi ne allahuma habib ilayna almadinata kama hababta ilayna makkata aw asada wa lana fi muddiha wa saa'iha ah yow yàlla yàlla nga ñu soppaloo Madina comme nag ñu soppaloo woon Makka yàlla nga barke wala nu ko gën a tax na nga barkeel seen muddu ya ak seen saaxa ya yàlla def na ko de ñu toxal ci buru su ko defee yóbbu ko juxfatu ah ak ak taayifa ak dëkk ya ca war def nag madinatul munawara nekk dëkk bu am climat boo xam ne bu neex la ñu sopp ko lool ba mëntuñ koo muñati su ko defee nag tabaarakallaahu yonantu baa ngoog dal na nag yónni na Aba Rafia waxoon naa la ko démb jox ko ñaari gilim tabaarakallaahu ak juróomi téeméer ci ay dinaar pour mu war a jëli waa këram ya loola nag ma ngay xew tabaarakallaahu gannaaw bi nga xam ne placé na madinatul munawara ba pare mooy man ñëw na tabaarakallaahu sawdatu ñëw na ak fatima usaamatu ñëw na ak ummu kulsum roqiyatu moom ñëwoon na ànd ak Ousmane mi nga bàyyee ko Éthiopie sëy na fa des nag moom gannaaw xareb badar bi mu paasee bay mat ñaari weer ci lay door a ñëw ndax jëkkëram ji gëmutoon yàlla mbokkam xéeféer yi sax dañ ko daan wax ne ko faseel doomi yonent bi comme ni xutbatoog xutaybatu ñi doomi abi lahab fasee ruqyatoog umu kulsoom mu ne amul genn jigéen gu ma soppee nii ni ma soppee sayyidatuna zeynabu loola nag seddoon xolu yonent bi yonent ko bëggoon njaboot la rawatina njaboot gu jigéen waaye jëkkër ji nag biñ ko jàppee mu bokk ca juróom-ñaar fukk ñan jàppoon ca xare badar ci la Zeynabu yónni rakam rakki abi aasi muy Omar ibnu aasi jox ko caq bi mu doon neexoon ci saydatuna Xadijatu mi yaayam pour mu njotee ko jëkkëram jile xam nga njot ga lu bari la woon ñaari junney dinaar ci ñu néew doole yi boo néewee doole ba néew doole di junne dinaar boo xamee doole fukki junney dinaar ak ñaar soo ñàkkee ba amoo loo joxe ñu jox la fukki xale wala fukk ci waa ci jullit ñi rek nga jàngal leen bañ fer ijji mën a bind xoolal ni yonent bi fonkee xam-xam su ko defee keroog ba caq ba ñëwee yonent bi xool ko fàttaliku ki ko daan takk jooy ci la ñaan ci saaba yi ne te ñoo jéggal abiance yi mu dellowaat saaba yi ne ko d'accord nañ su ko defee nag mu sartaak moom ne ko nag boo demee nag ma yónnee sama doom bu jigéen bi di Seynabu ci la yónnee rek ne na ngeen taxaw place sàngam ñoom yónni dana leen romb bu leen rombee rek ngeen indil ma ko indi nañ Seynabu mu fekk ci yonantu bi ca Madinatu Munawara gannaaw bi xareb Badar passé ba mat ñaari weer Aboubacar tamit yónnee na waa këram waa këram ya ñëw nañ waxoon naa la ko démb Umu Rawmaan ñëw na Sayyidatuna sa ñëw na su ko defee tamit ñooñu ak njaboot ga ñëw nañ fekk si Aboubacar Siddiq su ko defee nag ñoom ñëpp ñëw nañ ci a munawara dal nañ nekk nañ ci jàmm tabaarakallaahu ah, ñu nekk ci jàmm abubakar nag wax naa la njabootam ngi ñu ñëw wax naa la ngi ñëw timit am na ki ñoo xam ne tuuba gu ñu woon abdallah ibnu abi bakar mook asmaa'u ñoo bokk benn ndey ak baay seen yaay mi ngi tuddoon xatilatu bintu abdil uzza ibnu asad ibnu jabir moom nag di soxna soosa ñëwutoon ndax aboubacar da ko fase ci jamonoy jaahiliya booba duggagul ci lislaam moom moo ma sax moo ma sa ut formaas ak diw jëlee ko makka booba am xéeféer la indil ko doomam ji di asmaawu asmaawu ba nga jël kado bi yaayam may ko mu mer moom yaayam yónni Aysatu mu laajal ko ko yonantu bi ba mu ñëwee yonantu bi ne mën nga ko jël alquran ne laa yanhaakumullahu an illazina lam yuqatilukum fi ddiini wa lam yuxrijukum min diyaarikum an wa tuqsitu ilayhimu inna laa yuhibbul muqsitin suuratu mumtaxana la aayaab juróom ñett su ko defee kon koo bokkul ak diine daal bu xeexul sa diine sabotewut ko bu la mayee jëlal moo tax kon jël na naka noonu tamit abdourahman mile moom ñëwagutoon ànd ak njaboot gi ndax moom booba jébbaloo mu mi ngi jébbalu yow ma Xudaybiya xaswatu Hudaybiya ki la door a jébbalu yow ma Hudaybiya te loolu ma nga xew juróom benn li at ca gàddaay ga ñeena juróom ñaareeli at Abdourahman mi le nag moog sayyidatuna Aysatu ñoo bokk ndey ak baay Muhammad ibnu Abi Bakar ñëwutoon ndax tudduñ ko fi waaye booba juddoogutoon ndax yaayam mooy ummi Abdillah di Asmaa bintu Umays mi daan soxnaay jaafar bañu ñu jaafar ca raswatu mutata mu soxnaam sa japp tenji ba pare ci lako ko abubakar tak motax dom ji mu am ci di muhammad ibnu abubakar mi ngi juddu manam hajjatul wida' te yoon wa sax ci la juddoo ba dem ci place bu ñu tuddee Zul moy mooy harmalé rek ña bàyyi ko ma a munawara kon nag abubakar njabootam gàngoog ñi ca ñëw wax naa la ko ak ñi nga xam ne ñëwaguñu woon su ko defee nag abubakar wax naa la ko naka noonu abi ayuba wax naa la këram la yonantu bi daloon bam dalee këram nag juróom ñaari weer la fay am waaye këram ga mujj na jàkkay yonantu bi lekk na ko abu ayuba mooma ku baax la turam dëgg mooy xaalid ibnu saydin ibnu kulayb ibnu saalabata ibnu abdu awf su ko defee mi ngi bokk ci bani najaar ibnu xunmu ibnu malik ibnu najaar yaayam a ngi tudd hind bintu soaid ibnu Omar bokk ci bani Haris yaayam ibnu Xasraj abi ayuba moomu fekkee na xaqabaat yooya ñu doon jaayanteeg yonent bi te booba yonent bi ñëwagul Madina fekkee na ko moom mooma fekkee na Badar xare na ko ba yonent bi ñëwee Madina nag da koo mbokkee loxoon ak Musaam ibnu Umayr kon abi ayuba moo doon jaatige Musaam ibnu Umayr fekkee na futooxo yu bëri ak yaay xare yonantu bi moom la bàyyi woon madinatul mu nawara fuutaloon ko fa ah, moom moomu daal moo doon njaatigéem yonantu bi léeg-léeg mu dem xare bàyyi ko fa moom la xàlli yu fuutaloon ba muy dem xiraaq sa madinatul mu nawara gannaaw si gi dabi na ko dafa xàlliw ca yoon wa su ko defee fekkee na xareeb xawaarij yi xare booba fekkee na ko jàpp na benn bis ci sikka ñëpp yonantu bi moom abu ayuba yonantu bi ne ko laa yusibuka suu yaa aba ayuba xawma kan waaye yow daal xay du la dal fekkee na xaswatu xabrus ba ngay génnee àdduna ca xaswatu xastantiniya fa lay génnee àdduna ba mu génnee àdduna Yasid ibnu awee moo ko jullee ña ko denc ca Istanbul mi nga xam ne mooy capitalu Turki yàlla wër wërsëgal nañu ñun ñii dem nañ ba siyaare ji xabroom ba ca Turki mbooloo dañ fay dem di ko siyaare bépp jamono am na ndox mu muñ fay jëlee ca pegg xabroom ba dafay saafara jàngoro yu bari kon kooku mooy abi ayub ansaari mi doon njaatige sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama mi ngi génn àdduna bi gàddaay gi amee juróom fukki at ak ñaar su ko defee këram ga jàkkaay yonantu bi lekk na ko li ki des nag ci waxtaan wi rek maa ngi ànd ak yow kii gàddaay gi dama lay wax dara nag ci li nga xam ne tabarakallahu muhammad muhammad said ba borom xam-xam bu mag boobu moo ñu koy wax ci jàkkaay yonantu bi jamono ja ko yonantu bi di tabax nam tolloon ak gannaaw si gi ñaata yoon lañ ko yokk mi ngi ciy wax ne ñaareelu fan bi rek ci la yonantu bi rek di jàkka ji ñaareelu fanam ca Madina foofa gëlëmam nga gooroon fekk booba jàkka ji sëhloog lu ñoo ko moom di ñaari jirim yu bokk ci lansaar nekkoon ci roon asaad ibnu sarara moo doon seen kilifa yonentu bi waxante ko ak ñoom ñu ne ko duñ la ko jaay dañ la koy may yonentu bi ne ëpp naa def jënd ko ki ñoom ci njëggu maandu aboubacar siddiq moo joxe alal ja fukki dinaar la foofa nag lañ sullee xabru ya dajale yax ya gor garab ya ca tàndarma dajale ko ba mu nekk ab ndend yonentu ba rëdd fa jàkkaam nga jël xibla ba jubale ko ak baytul maqdis julli na fa fukki weer ak juróom ñaar yoo xam ne bu daan julli foofa la daan jublu defal ko ñetti buntu gannaaw si gi nag la ko sama borom ne ko fa wëlli wajhaka satral masjidil haraami wa haythuma kuntum fa wallu wujuhakum satrahu su ko defee nag ci la commencé di jublu makkatal mukarrama waxoon naa la bam tabaxee jàkka ja ca njëlbeen ga sallallahu alayhi wa ñaay ba juróom-ñaar fukki meetar la yaatuwaay ba juróom benn fukki meetar bu ko defee ñetti buntu la woon kenoom yaa bariwutoon ñett la gannaaw si gi nag na ci yeneen ñetti keno ca wàllu sowu ga loolu lay def jàkka ji di yokk gannaaw xaybar yokkaat na jàkka ji moom yonentu bi sallallahu alayhi wa su ko defee nag gannaaw xaybar lay yokk jàkka ja bu tolloog xatam juróom-ñaar ci gàddaay gi la ko yokk yokk goo xam ne yokk bu mag la def ci ay keno tabaarakallaahu yokk buntu ya gannaaw si gi nag noonu la ko bàyyi ba nim génnee àdduna Sayyiduna Omar mooy ki ko njëkk a yokku ci xulafaaw yi yokku ca ñaari keno ca gàddaay gi bi mu amee fukki at ak juróom-ñaar mu mu yokk ko ca wàllu sow ba ak ca wàllu penku ba ca wàllu càmmooy ba foofa nag wàllu càmmooy ba yokku na ci lu yokku ñaari keno wàllu sow ba mu yokk fa ñaari keno su ko defee gannaaw si gi ba mu génnee àdduna ci la ko Sayyiduna Usmaan yokk bi gàddaay gi amee ñaar fukki at su ko defee tabaarakallaahu ak juróom-ñeent mu yokk ci ay keno benn ba ma nga nekk ca sow ba benn ba nekk ca xibla ba Seydina Ousmane moo ci sos mihrab bii ngay gis mandarga muy mandarga Ousmane ko ci def su ko defee nag noonu la continuer di dem gannaaw si gi waliit ibnu abdil malik ibnu marwan moo ko yokkaat booba jaraafam ja moo nekk madina di di omar ibnu abdul aziz mi ngi dàkkantalee xaamisul xulafa yokku googa ma nga xew bi gàddaay gi amee juróom-ñett fukki at ak juróom-ñett su ko defee moom moo ci dugal saali soxna ya saal ya fa nekkoon di juróom-ñeenti saal yëpp ñu toj ko yokk ko ca jàkka ja gannaaw bam leen hutalee fañu fañ fañ fañ war a nekk ña ca desoon su ko defee tamit gannaaw si gi alxalifatul mahdiyu di ibnul xalifa al mansuur yokkaat na ko loolu yokk gi mi ngi nekk di gàddaay gi amee téeméeri at ak juróom benn fukk ak benn la ko tàmbali waaye ma ngay mat bi gàddaay gi amee tabaarakallaahu téeméeri at ak juróom benn fukk ak juróom kon yokk gi rek diire na ñeenti at gannaaw si gis sultaan kaayita baay yokk na ko yokk goo xam ne gu xir xir la gu rëy rëy la ca lañ nekk nag loolu ma ngay xew bi gàddaay gi amee tabaarakallaahu juróom-ñetti téeméeri at ak juróom ak euh, juróom-ñett gannaaw si gi sultaan mahmoud di xaani yokkaat ko yokk goo xam ne gu yaatu la loolu ma ngay xew ba gàddaay gi amee téeméeri at ak ñaari téeméer junne at ak ñaari téeméer ak fanweer ak ñett gannaaw si gi sultaan abdul majid ci osmaani yéene yi la bokk moom tamit yokkaat na ko rafetal ko def ci ay làmp yu limoo limoo limu jël jàkka ji def ci ay peme ay per rafetal ko tabaarakallaahu yokku gay dem noonu lay continuer tabaarakallaahu ñu yokku ay keno muy dem rek ba actuellement gis nga jàkka ji euh, maanaam masaax bi boo ko jëlee ci ay mètre euh, nekkoon na euh, ci ci njëkk yokk yi laa lay wan ak benn bu ne lam nekkoon ci ay métrage kon jamono ji ko yonantu bi di tabax daal lam tolloon ci ay mètre junney mètre la woon ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom loolu la doonoon maanaam masaxatal masjid bi annabawi xiinama banaahu sansanam bil amtaar al murabba alf lii la tolloon kon lii la fi yonentu bi bàyyi booba métrage bi daal boo ko ci ci murabbax bi junneey meetar la ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom Seydina Omar dolli ci dolli ci junneey meetar ak téeméer Seydina dolli ci ñeenti téeméeri meetar ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn wali dolli ci ñaari junneey meetar ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent mahdi yu moom waxoon naa la ko dolli ci ñaari junney meetar ak ñeenti téeméer ak juróom fukk moom la ci dolli al asraf kayta yokku ci téeméeri meetar ak ñaar fukk abdul majid kaan yokku ci junney meetar ak ñaari téeméer ak juróom ñeent fukk ak ñett ba tax na daal loolu la masaxa bi boo ko jëlee lépp njëkk arabi saudi di ko yokk Cerno Saïd Baye wax mu ne booba njëkk waa saudi di ci dugal seen loxo daal métrage bi yépp boo ko jëlee fukki junney mètre la woon ak ñett maanaam ñetti téeméer ak ñett fukki junney mètre ak ñetti téeméer ak ñett la woon avant saudi di ci yokk dara ñoom nag yokkaat nañ ci ay yooni yoon seen yokk bu njëkk bi rek yokk nañ ci juróom benn junne ci ay meetar ak ñaar fukk ak ñeent ci ay mètre xam nga nekkoon kon loolu bari na su ko defee nag loolu mooy yokk bu njëkk ba boo jëlee yokk bu njëkk ba lekkoon boo ko boo ko defee ca la la fa njëkkoon a nekk dafa lay jox fukki junne ak juróom benn ci ay meetar ak ñetti téeméer ñu teg ñaar fukk ak juróom juróom ñaar lii boo ko jëlee ci yokk bu njëkk ba nga nga nga nga nga ko ca la fa njëkkoon a nekk la njëkk ñoom ñu ko yokk waa Arabie Saoudite su ko defee nag boo jëlee jàkka ji jàkkaay yonantu bi lim lim lim xenu ci ay keno keno yi ko yenu yépp xenu miir yi keno yi nga xam ne ñooy xenu miir bi ci kaaree jàkka ji nekkoon na nekk na juróom benn fukki keno ak ñeent yooyu mooy yi nga xam ne mooy yoo yenu miir bi ci kaare bi boo jëlee na ci rond bi ñaar téeméeri kanon la lay jox ak ñaar fukk ak ñaar su ko defee boo jëlee gudd ñaayu miir bi ci wàllu sow moom jàkka ji dafa lay jox téeméeri meetar ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci gudd ñaay boo ko jëlee ca miir bi ci wàllu sarq bi gudd ñaay mi ba ca wàllu càmmooy juróom-ñeent fukki mètre ak benn la lay jox kon lii lépp mooy dem ci jàkkaay yonantu ba sallallahu alayhi lii mooy yokk bu njëkk ba soo jëlee yokkam ñaareel bi bi ci saudi yay def nga xam ne ci jamonoy almalik faysal ibnul abdul aziz lañ ko lañ ko defoon boo loolu mi ngi tolloog ci année junne at ñetti témèr ak juroom ñent fukk ak ñaar nga xamné dañoo tag lu bëri ku doora commencé defar jakaja ja malik fahab ibnul abdul aziz taxawé liggéey ba lolu mi ngi maanaam moy moy moy mooy yokk bale yokam ñaarel bi timit ah malik fahab ñewat yok ko ci année ab ak ñeenti téeméer ak ñett su ko defee tabaarakallaahu nga boole ko lépp lépp lépp boo ko boolee ci yokk yooya fukki junne la jox fukki junne meetar ak juróom benn ak juróomi téeméeri meetar ci carré bi kon nga xam ne kon jàkkaay yonantu bi daal kéemaanal yàlla la tabaarakallaahu ci rëy ak gaa yi fi ñu jaar moom yëpp su ko defee kon jàkka jàngoog ah, buuru arabi saudi yi nag ku ñëw rek yokk ku ñëw rek yokk ku ñëw rek da nga jàkka ji liggéeyaat xam nga ba léegi actuellement sax ñu nga yokkaat tabaarakallaahu masjidul haram kon loolu naka jekk mooy seen liggéey kon daal lii ma ma limal la tabaarakallaahu mooy jàkkaay yonumtu bi soo ko doon jël tabaarakallaahu man ngaa wax ne moom ña fa mën a julli ca dawrul ardi ba rek ay million yi nit mën nañ caa julli lu mat fanweeri million ak juróom-ñaar mën nañ fee julli ci yaatuwaayu jàkka jàkk la la la fa nekk kon nag tabaarakallaahu boo jëlee masaxatu dawrul ardiya bi rek dafa lay jox ci masaaxa bi maanaam ci murabbax bi boo jëlee satxu bi téeg ma mu jox la juróom benn fukki junney meetar ak juróom ñaar boo jëlee yaatuwaayu jàkka ja ca ña mën a julli dana jël ñaar fukki junne ak juróom ñett ci ay junne mën nañoo julli ci yaatuwaayu biir jàkka ja boo jëlee nag yaatuwaayu suuf yi noona moom million ak fanweeri junneeg juróom-ñaar mën nañ caa julli soo jëlee kaw téeg ma juróom-ñeent fukki junne ci ay jullit mën nañ faa julli su ko defee kon nag boo jëlee lépp nga nga nga boole ko totaale ko ñaari million ak juróom fukki junne ak juróom mën nañu jullee ndoor ci jàkkaay yonantu ba boo jëlee kaw téeg néeg yaatuwaayu bayaal baak biir jàkka jaag lépp ñaari million ak juróom fukki junne ak juróom ñoo fa mën a julli kon jàkka jaag ngóog tabaarakallaahu ak miraakal yu rëy yi mu làmboo tabaarakallaahu euh, tabaarakallaahu li mu làmboo tabaarakallaahu ci taar ak ci gànjar ak ci xayma ma ngay lim sax moom Cerno Saïd bunt ya dana mat juróom benn fukki buntu ak juróom ci ay bunt bunt bu ne am na nuñ ko tuddee waaye boo jëlee tabaarakallaahu ah, li ci haju loolu lépp ma ngi ko cay wax kon dëgg-dëgg sonn na lool ci actualité taarix ak siira yal na yàlla yokk ko wér te yokk ko jàmm liggéey bu rëy boobu mi ngi ko def tuddee ko naylul arab min xilaazi zahab def ko ñetti xaaj liggéey ci liggéey boo xam ne nii amul morom loolu benn xulaafa rek bu ma la ci jëlal waaye bàyyi naa ca lu bari ci wàllu siifur yi ngir ak waxtu wi tabaarakallaahu ak li nekk ci suñ kanam ñi fas yéenee xegg ci ak yéen kon nag jàkka jàngook ak soxna yi seen saal ya fa lañ dëkkoon juróom-ñeenti saala nga fa woon soxnaa yonantu bi dëkk ca bii saal mooy saydatuna Aïcha mooy saal bu njëkk bi ba yonentu bi génnee sax foofu lañ ko denc fa lañ denc Aboubacar Siddiq fa lañ denc sayduna Omar ca néeg saydatuna ibnu abi Sufyaan jëndoon na saal bii ci Aïchatu mooy néeg bi Aïchatu jaayee ko ko téeméeri junne ak juróom-ñett fukki junne ci ay dinaar ñenn ñene déeréet juróom-ñett fukki rek la ko jaayee waaye nag da koo sartaan ne fi laay dëkk ba génn àdduna du ko génn waaye li lay xamal Aysa ku dëddu la xalal jooje ba ko ko Muawiya joxee fi mu toog la toog séddale ko avant muy jub la ko jox ñëpp war ne soxlawu ca dara def na ko muy sarax rek ñaareelu saal ba mooy saalu sawdatu li nga xam ne mooy yaayi jullit ñi moo saalab aysatu bi ñoo dend ñoom ñaar ñoom ñaar ñoo leeraloo ñetteel ba nag mooy saalu néegu xafsatu li nga xam ne mooy doomi Seyduna Omar su ko defee moom tamit amoon na fa néeg ñeenteel ba moom ngay topp mooy néeg saydatuna bu bintu xusay mata su ko defee noon nga koy toppee daal néeg ya noona ba muy juróom ñeenti néeg su ko defee soxnaam yu tedd yile tabaarakallaahu dëkk fa waaye nag li lay xamal yonent bi ni mu dëddoo àdduna ni la yaree njabootam ci dëddu àdduna néeg yii néeg lañ yoo xamee na ni yu xeebu la woon ci gis-gis ay xalifa ne seen xaymaa rëy ak seen daraja ndax kat fa la daan jibril di wàcc di fa fekk yonent bi di ko indil alquran moo tax tekkiwut ne lu suufe ci bët lu ne rekk suufe na tekkiwut ne lu yëkkatiku ci bët lu ne tamit yëkkatiku na waaye boo jëlee néeg ya daal tabaarakallaahu lu suufee la ci bët waaye nag lu yëkkati ko ci daraja niñ ko tabax ci ay ay dembaleng ay xeer nañ ko tabaxee tabaarakallaahu jël ay xobi tàndarma xëddee ko kaw ga lii ci la soxnaam yi dëkkoon boo ko seetee nag néeg ya dafa xat yaatuwut daanaka rek euh, mën naa euh, Cerno Saïd mi ngi ñuy portaleel yëkkatikuwaay ba ak maanaam masaaxa ba na mu demee woon mu ne diggante bunt bu ne ak moromam buntam ci diggante néeg yooya tabaarakallaahu juróom benni xasabu lay toll ba juróom ñaar boo ko jëlee tamit jege ñaale ga ni ñu jegee xante ñetti mètre lay doon ak genn wàll gudd ñaay ba fukki xasabu lay doon su ko defee nag kon loolu xam nga ne rëyut xasanal basri ak taabiiyu nee na dugg naa ca néeg yooyu yonantu ba ne woon ak soxna ya booba xale laa waaye booba saqfu bi muy te téeg mi mën naa koo mën naa teg teg sama loxo dafa gàttoon guddul noonu su ko defee nag néeg bu ne rek ànd naa nag asi ab bu ne rek am naa asi néeg su ndaw suñ dend ak ko defee nag néeg yi la yëpp nekkutoon sax ñoom ñëpp di luñ tabaxee ci ay dembale ay móol néeg umu salmata rek lañ ko tabaxee woon ci móol umu salmata moom dafa bari woon alal moo tax moom néegam ba dafa koo defaroon ba mu baax wooma lool la ba yonent bi fàddoo la defar néeg ba tabaarakallaahu boo demee imaamu Munziri yu jëlee na ci Atiyatu bnu Qaysin mu ne saali soxna yonent bi ay xobi ay xobi tandarma lañ tege won ci kaw tigma waye wu musalmata nak mom ah dindi won na xobam yi ci néegam ba def ko ay mool bu doon léegi dal mel luñu terrasse rek ndax mom nak borom man-man la won kon li moy tay yonent bi métarafia waxna la ko jàkkaay yonent bi tay boo demee Madina dañ lay wax ne la yonent bi dëkkee woon ak saabaam ya tay lañ dëkkee woon lépp tay jàkka ja lekk na mooy jàkka ja tay yaatuwaay ba na Madina tolloon booba daal tay moom la jàkka ji moom la jàkka ji tollu lekk na lépp su ko defee nag jàkka jàngoog ahlu sufa ñi nga xam ne tey ñoom xamuñu woon doole ndeysaanam bu reer jotee rek ñenn ñi ñëw reer ci yonantu ba ñenn ña yonantu bi teqale leen ci ay saxaabaam yi dem reeraani fa aaye bu wàcc ñoo koy njëkk a mokkal xadis bu yonantu bi wax ñoo koy njëkk a mokkal yonantu bi ne dee leen mokkal xadis yi waaye bu leen ko bind alquran ji nag man ngeen koo bind mu ne xeer ya leen jiitu woon li leen alak dañ daan bind seen waxi borom ak seen waxi yonantu ba ñaari wax ya léeg-léeg ñu ne yàlla wax na fekk yonantu baa wax léeg-léeg ñu ne yonantu bi wax na fekk yàlla wax kon nag bii mooy suñ ñaareeli waxtaan ca gàddaay ka tabaarakallaahu boo ma toppee suba nag xare ya ma la doon annoncé ma door cee dugg ak yow ci xare yonantu bi nga xam ne dana man ñaar fukki xare ak juróom-ñaar boo ma toppee xare bu ne wan weer la xew ak ban place laak la ca xew danaa la ko wax dana su ah, ko defee nag ci waxtu wi lay doon insha allahu wa aqiru daawana ani alhamdulilah rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi nga ba pare fekkee abonné goon na nga te bés tuus cloche bu ñu dugalee vidéo nga mën di jot notification